إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد ين بك جلدي نوغي لين دي نويو نيو الاسلام نيو الاسلام موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غناو لولو waxtaanu tey ان شاء الله تعالى wala dërs tey bi ñi ngi war a aju wa iyyaka nasta'in eh, ak bismillah xam nga ne noo ngi ci ders ak ñaar ci firi suratul fatiha wa iyyaka nasta'in amoon nañ ci ders ci àjjuma ji ñu mujjee toog ñu war cee àggale aslaf waxtam ci bismillah ndax am mbir mu leen boole walla bokk lu leen nurale waxoon nañ ci dërs bi weesu na jullit bi bu waxee wa iyyaka nasta'in am na ñaari wax yu mu wax benn bi mooy dafa wax ne mi ngi sàkku ndimbal ci yàlla subhanahu wa taala bi ci des mooy dafa wax ne te du ko sàkku ci keneen loolu nag jullit bi war na koo xam boo ne maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla loolu lu leer la da taxaw ci kanamu sa borom wala nga toog ci kanamam di ko wax sa borom maa ngi lay ñaan nga dimbali ma waaye bi nga ci tegee nag ni ko du ma ko sàkku ci keneen loolu da nga ko koo dig li nga dig yàlla nag war ngaa fexe ba matal ko waroo ne yàlla du ma sàkku ndimbal ci keneen ba noppi dem di ko sàkku ci keneen masala moomu leeraloon nañ ko ba pare ci bés bi weesu incha allah ku ci bëgg a fàttali ko bu ko neexee mu dem ci Maodo Dieng mu wutal ko CD bi wala kaset bi incha allah bu ko defee tey ñu war a leeral bismillah baagoogu baagoogu nekk ci bismillah moom itam dafa am lu mu ñuróole wala lu mu bokkle ak wa iyyaka nasta'in xam ngeen ne bismillah danoo sàkku ci yàlla dafa sàkku ci jullit bi ci turu sayduna muhammad wala ci làmmañu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu muy def mu defe ko bismillah ci jàkka ji bi ngeen di dugg si képp koo xam ne dafa yàkkamti ba waxul bismillah bàyyi na aw warugar te du bismillah rek sax la war a wax kuy sol sa mbubb war ngaa wax bismillah kuy sol saw dàll war ngaa wax bismillah ku koy summi war ngaa wax bismillah lépp lu am saay ga lu jullit di def war naa booleeg wax bismillah kon war na noo xam luy bismillah baa googu mi tudd baa ul istiaana baa ul istiaana mooy baawu sàkku ndimbal foofu la bismillah amee alaaqa wala ak jote ak iyaaka nastain ndax iyaaka nastain ginnaaw da ngay sàkku ndimbal ci yàlla ak di wéetal yàlla ci ne do sàkku ndimbal ci kenen kudul mom te bismillah itam baa baaw sàkku ndimbal la kon ñom ñaar loolu lañu jotté jote ma bëggoon baaxaa di mu waxal nu aslaf ci maani yi nga xamne mom la bismillah ambu su fekke jullit bi da ko wax ci ndal bi lu muy bëgg def ah فمن معاني باب الاستعانة أن العبد عندما يبدأ أي قول أو عمل فإنه يبدأه مع التسمية بسم الله mu ne jullit bi lépp lu muy def wala mu di ko wax da koy tàmbalee ak baawu sàkku ndimbal goo gi nekk ci bismillah mu ngoog baawu sàkku ndimbal gi nekk ci bismillah aha فيكون قد جمع بين أمرين بدء بدء ذلك العمل بذكر اسم الله تعالى وطلب العون في إتمام هذا العمل من الله تعالى jullit bi war na mu xam bu nee bismillah li mu wax lu muy tekki bi ngay bëgg a def dara walla ngay bëgg wax dara ne bismillah ñaari yëf nga boole bu jëkk bi mooy li ngay def da ko tàmbali boole ko ak tudd turu yàlla xam nga tudd turu yàlla dafa bokkul ak tudd turu leneen lu bokkut yàlla subhanahu wa tudd turu yàlla wala tudd turu ab sëriñ wala tudd turu jàkk wala garab wala wata tudd turu nit walla jinne bokkul ak tudd turu yàlla boo nee allah boo tuddee turu yàlla rek loolu jaamu yàlla la te itam dafa am barke buy jóge ci turu yàlla wi daal yi ñëw ci yow ñëw ci li ngay def da ngay tàmbali nag ay wax walla jëf nga ne bismillah boole nga ñaari yëf tudd nga turu yàlla bi ngay tàmbali jëf gi ndax lee mu am barke waaye itam sàkku nga ndimbal ci yàlla nee nga ko sa yàlla na nga ma dimbali ci lii may tàmbali ba mu àgg ak jàmm te àgg ak barke loolu la bismillah di tekki kon boog yow miy war ci sa saret wala sa fas wala sa oto ne bismillah li nga wax mooy da nga ne yaa ngi tàmbali war gooy war oto bi wala fas bi yaa ngi koy tàmbali ci turu allah te itam yaa ngi sàkku ndimbal ci yàlla mu sàkk mu dimbali la ci yéeg goy yéeg ci fas yu mbaa wata gi ba lañ ciy jublu mën a am loolu lay tekki loolu bu baax a baax dañ ko war a xam uh-huh. te loolu li muy tekki dëgg-dëgg moo di nekkate kon jaam bi ci bis bi bu fekkee jëfe na ndigal dina ci sàkku ndimbalal yàlla lu bare bare bare bare ndax ginnaaw lépp looy def lu am fayda dañoo bëgg nga tàmbalee ko bismillah lépp looy wax lu am fayda nga tàmbalee ko bismillah kon kay ci guddi ak ci bëccëg danga wax bismillah lu bari te bismillah yoo wax rek ëmb na ñaar yooyu ëmb na li ngay def tàmbalee nga ko turu yàlla te itam ëmb na ñaan goo ñaan yàlla mu dimbali la ci li ngay def kon yow foo toll yaa ñaan yàlla ndimbal da ngay lekk na bismillah mooy sama borom yàlla yàlla na nga barkeel sama lekk gi maa koy tàmbali surtout di la ñaan nga dimbali ma ci lekk gi mu rees ak jàmm da naan wax bismillah da ngay ñaan yàlla mu dimbali la ci naan bi bi ngay tukki bi ngay jàng bi ngay jàngale bi ngay ub ab neeg ne bismillah bi nga koy ubbi bi ngay dugg bi ngay génn ne bismillah loolu lépp da ngay ñaan yàlla yoon yu bare bare bare kon ci bis bi pour mu dimbali la loolu lu tax nu bàyyi noddukat bi mu noddu sa wàll ñu door a àggal insha allah asalaamaaleykum war rahmatullah kon boog danoo sampoon ab laaj te laaj bi ma ko seetlu moo di jullit bi bu wéyee ci ndigal lépp lu muy def da koy defe bismillah kii jóg di dem di nag sax buy jóg day wax bismillah bu dellusee buy toogaat day wax bismillah booy dugg sa nekk wax bismillah booy toog ci sa laltu wax bismillah booy jóg wax bismillah te bismillah li muy tekk mooy yaa ngi tàmbali li ngay def ci turu yàlla tey ci yaa ngi sàkku ci yàlla mu dimbali la lool li muy tekki mooy yow foo toll yaa ngi sàkku ndimbalal yàlla ci bëccëg bi lépp ak ci guddi gi looy def rek yaa ngi sàkku yàlla dimbali la ca waaw lu tax aha li tax moo di doomu aadama dafa bindoo ak néew doole te ku néew doole daa soxla ndimbal ah ku néew doole daa soxla ndimbal aha sa borom yàlla nee na wa xuliqa al insaanu daifa nee na doomu nit dañ ko sàkk muy ku néew doole kon boog ak néew doole dafa ànd ak ñun néew doole gu metti googi moo tax fu nu toll war di wax bismillah di sàkk ndimbal ci yàlla yàlla yàlla dimbali ci sunu lépp néew doole googu moo tax ba nit ki dafa soxla ndimbalal yàlla ci waxtu wu ne ci jëf ju ne lépp lu nit di def soxla na ci ndimbalal yàlla instant bu nit nekk waxtu wu mu ne ba ci toogaay bii ma toog yëngal sama loxo bi yëngal nii soxla naa ci ndimbalal yàlla waxtu wu ci jëf ju doomu aadama soxla na ndimbalal yàlla doomu aadama soxla bu soxla ndimbalal yàlla ci waxtu wu ne mën naa ko nuraleeg lamp lamp courant buy tàkk lamp courant biy tàkk wala ventilateur bi di upp xam ngeen ne ab courant mooy ak mooy jaar ci fiir gi ak ci moom xam ngeen ne courant bi am na fu muy jóge mën naa am ci ab groupe lay jóge wala mu ngoog ci am na am na fu muy jógee fii courant bi di jógee di agsi ci lampe bi ba lampe bi mën a tàkk noonu lampe bi soxlaa courant bi ñu dikk ko tëbb waxtu wu ne ba nga xam ne la yor courant ba bu coupé benn instant lampe bi day fay fi saa si doomu aadama noonu la soxlaa ndimbalal yàlla ba nga xam ne tëbb gi ko yàlla di tëbb ay ndimbal ci waxtu wu ne bu ko yàlla téye woon benn instant ci saa si duutu man dara ay ndureem yépp ay taxaw damaa jëllale sax jëf yi muy jëf soxla gum ci soxla ndimbalal yàlla waaye moom ci boppam ak nekkam ak nekkam akuk amam dafa soxla yàlla di ko tëbb ak nekk ijaat gi ko yàlla ijaat te mooy amal gi bukkul ak imdaat gi te mooy tëbb gu ko yàlla di tëbb pour mu continuer di nekk te yàlla tëbb googu mu koy tëbb ak nekk moom doomu aadama bu yàlla téye tëbb gi ben instant rek ci jasi si doomu adam bi du amati mi mel rek yow mu doon rëdd ci ndox yow mi rëdd ci ndox boo tegee sa baaraam di rëdd feet baaraam baa ngi ci ngay xëtt di rëdd rëdd waa nga fa waaye boo yëkkati sa baaraam aw rëdd nekkatu fa doomu aadama bi noonu laa ko mën a misaale ak nekkam aku amam ci àdduna wala fudul dul àdduna faw dafa soxla yàlla continue di ko ko tëbb fu yàlla téye tëbb googu benn instant rek duutu amati te loolu nag jàmm ñépp ci yem amul seriñ beeg taalibe bi amul borom xam-xam beeg wàllu yu weeg yonente weeg góor géeg jigéen ki jàng ki jàngula këri ma xam ak yem kenn ku ne gi la yàlla ji tëbb ak am bu ko téyee benn instant dootoo fa ne da far ni wurëdd kon nag te loolu jàmm ñépp a loolu moo tax ndimbal wareesu ko sàkku fenn fu dul ci yàlla ndaxte kon ginnaaw yow ki nga bëgg sàkku ci moom sa moroomum jaam la te moom ci boppam daa soxla ku continuer di ko tëbb ndimbal te tëbb googu ñu koy tëbb bu ko yàlla téye benn instant ay mbiram du dara bu ci doxati kon kay moom mënta tëbb kenn ndimbal te daa soxla yàlla continuer di ko tëbb ndimbal loolu boo tax sàkku ndimbal ci kudul yàlla mi tëbb ñépp ndimbal boo ko defee yaa ngi sàkku lëf fu mu nekkul boo sàkkoo ndimbal ci keneen kudul yàlla yaa ngi sàkku lëf fu mu nekkul ndax kam koy sàkku ci moom ab jaam la te moom ci boppam dafa soxla yàlla continuer di ko tëbb ndimbal te bu yàlla te ndimbal lim koy tëbb benn instant benn xafe xippi ay mbiram yépp taxaw yal nay ab sëriñ yal nay wëliyu yal nay ab yonent yal nay ku jàng yal nay ab tubaab yal nay góor yal nay jigéen lu mu rëy rëy lu mu tuut tuut lépp lu muy def yàlla day continuer di ko ci tëbba ndimbal bu yàlla téyee ndimbal li benn instant daraam du doxati kooku kay kon jël sa dem ci moom ndimbal kii jox ñooñu ñëpp ndimbal te moom kenn du ko dimbali mooy yàlla foofee fa la su war a sàkkoo ndimbal loolu moo tax ñu war a sàkku ndimbal ci yàlla waaye itam nu war ko sàkku ci moom dong moo tax tam sàkku ndimbal ci keneen ku dul yàlla sànq jamono la te itam tooñ la te itam la loolu mooy maanaam wa iyyaka nasta'in mooy maanaam yàlla maa ngi sàkku ndimbal ci yow waaye du ko sàkku ci keneen xasru ji wala tawxid ji wéetal yàlla ci sàkku bi lay sàkku ci moom mi ngi ci jiital bu jiital maf'ul bi nastainuka la woon fial la ak fail ak mafuul sàkku ndimbal ak ki koy sàkku ak kiñ koy sàkku ci moom mafuul mu soppi ko def ko damiri munfasil jiital ko taqdim ko muy wa iyaaka nastainu ñu mujj fial jeg fail bi loolu mooy maanaam xasru gi mooy tawxid mooy maanaam yow ci yow yàlla dong la ñuy sàkku ndimbal mooy ndekete yàlla dong la mën a bàyyi ko loolu tam moo tax su borom yàlla ci xam-xamam baag xereñam nga ak ci yërmandeem ja mu ne nu waay waay dee leen ko sàkku ci man waxtu wu ne mbaa di leen ko jox waxtu wu ne lépp lu ngeen def rek wax leen bismillah te boo nee bismillah yow jullit bi na nga fexe ba xam li nga wax li nga wax mooy lii may def maa ngi koy tàmbali ci turu yàlla maa ngi ko booleeg di ci sàkku ndimbal ci yàlla yal na nu yàlla dimbali ci suñuy mbir yépp kon boog bismillah mu noonu loolu lay tekki lépp lu waay di defe ci ci ñun na fexe ba buy tàmbali jëf de mu tàmbali ko ak bismillah bu ko kenn farteet tey itam nañ ko jàngal soxna yeeg doom yi te nag yenn saa yi bismillah dina ñëw ànd ak beneen dikk waaye yenn saa yi eh, yàlla dina la sant ci làmmiñu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa booy def nangam na nga wax bismillah waaye na ko booleeg nangam muy beneen zikr bu war a ànd ak moom nan jël misaal ci xam ko xam ne yàlla bu lay yàlla santaane gu mu santaane kuy def nangam lu mu mën a doon na ko tàmbalee bismillah waaye yenn saa yi dana am leneen lu mu boole beneen xeetu zikr yenn saa yi muy zikruk wax ak zikruk jëf te ñu bari ci ñun xamuñu zikruk jëf zikru jëf mooy lan mooy zikru wax laay jëkk wax zikru wax xam nan ko boo nee bismillah loolu zikru la ci wax boo nee alhamdulillah zikru la ci wax waaye nag zikru ci jëf mooy cër bi jamono yi mu nekk di def li ko yàlla sant mi ngi zikr jamono yi nga yëkkatee loxo yi mu tolloog nopp yi ngay kabar kabaru armal di wax allahu akbar lammiñ waa ngi zikr waaye xamal ne loxo yaa ngi zikr dafa yëkkati gum yëkkati ko ba si was nopp yi bi nga ko tegee ci kaw dënn bi xamal ne loxo yaa ngi zikr léeg-léeg nag sa borom yàlla dina santaane ne jëf ji ngay def na nga ci boole wax bismillah ak beneen zikr boo xam ne bii daa bëgg nu boole ko ma bëgg nu jël misaal ci boo dee génn sa kër di bëgg a jëm foo mën a jëm am na zikr bu fa yàlla santaane سيدنا محمد جانغل نكو صلى الله عليه وسلم أها. فقد خرج أبو داود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya déglu leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mu jàngal kenn ku nekk ci nun nan la war a génne këram bu dee génn këram nan la ko war a defe bu dee day wax bismillah itam lan la ca war a déglu leen abu daawud solo na jële ci abu hurayrata anhu mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi su amee ab jullit buy génn këram di dem mu wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah nee na am lu wax ne ko wa kufiita wa wuqiita dana am ko wax loolu loolu mooy lan mooy li ngay wax lépp jubaleef na ko بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله نكتم نوح من داو نكدف waaye kon bokk na nga koy عليه الصلاة والسلام دكو سخالون أي صحابة مسخال كتب بلديت أم نتجلي جيني على باخي مسخال كنيونا يلن سيال بول كودا ولدف نكو تملي يلن سبينا نكوي جيب نكرم صلى الله عليه وسلم وخ لولو دينا أم لولو بكرة فيه نينا بونا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أم لني أم لني ونلا يلا جبلنا سيندير كفقلنا لسي سخلك te aar na la ci lépp luy lore nee na jinne yi ak seytaane yi dañuy randu jinne yi ak seytaane yi dañoo bëggoon a topp ci yow yàqal la waaye dañuy randu bu ko defee beneen seytaane ñu wax seytaane suñ ko si doon bëgg a jege ko kii loo ko mënal koo xam ne kii moom jubal nañu ay mbiram yëpp te la ko itti lépp si na ko ko te itam yàlla musal na ko ci lépp kooku loo ko mënal ñu seytaane yi ba ko fa kon bokk seetaan day daal di bàyyi loolu jar na jar na jar na ñaan googu ñaan googu jotuma ko bind andi ko waaye ku ngeen dajee ci xale yi incha allah mu bindal leen ko aha وخرج النسائي عن وخرج النسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيامن في جميع أموره نسائي ما مدفع عندي بدل الحديث جلك تسري يا عائشة رضي الله عنها سنة يا عائشة نينا لننت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم كبقون جفن دي جورلا كبقون جفن دي جورلا بدان جخ جخي لخم دي جورلا دا جخي بدان ننغو لخم دي جورلا دان ننغو بوك دي جخ لب المدان دف دي جورلا دان لكي دفن ناري حديث يويو boko bolé rek daaji xam abdul bi génn kërëm لا ورا الجنة أها فأنت عندما تخرج بهذه الكيفية من البيت إلى أية حاجة أو أية جهة مقدما الرجل اليمنى قائلا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإنك جمعت بين ثلاثه من يو سكر بي دا جن يو جلد بي دنجا جن سكر di jëm ci la soxla nda nga jëm fo mëna jëm nga defe ko ni ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wasallam te nga tàmbalee ci jëkk a sa tànkub ndeyjoor waaw da ngay jëkk a génne sa tànkub ndeyjoor ndax li yonent bi bëggoon ngay joor lu wa sallam te yéene ci nag roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo jëkkee génne sa tànkub ndeyjoor teg ca wax bismillah tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah nee na su boobaa def nga ñetti mbir ñetti mbir nga def yu bokkul ban ak ban la الأول أنك ذكرت اسم الله bu njëkk bi moo di def na zikrullah ci ay jëf say cër am na ci say cër boo xam ne def na zikrullah te mooy tànk ndeyjoor bi nga jëkk a génn ndegam da nga koo génn ci kaw yéenay roy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñaareel bi mooy ban الثاني قولك عند الخروج بسم الله bu ñaareel bi mooy wax boo wax bismillah li muy teg mooy yaa ngi génn ànd ak turu yàlla boole koog di ñaan yàlla mu dimbali la ci génn gi dimbali la ci soxla si la tax a génn loolu mooy ñaareel bi ci li nga def kon ñaan nga yàlla mu dimbali la te itam génn nga ciw turam aha athalitu qawluka tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa bi mooy wax nga eh, tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah te loolu li muy tekki mooy wakkirlu naa ci yàlla samay mbir yépp wékk naa ko yàlla te itam man wóor na ma ne pexe wala kàttan nekkul fenn fu dul ci yàlla kon boo képp ku génn te génn génn wi yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam boole nga ñetti mbir yooyu def nga zikrullah ci sab tànk te itam wax nga bismillah te kon mooy maanaam nee nga yàlla maa ngi génn ànd ak di génne saw tur te itam maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci li ma tax a génn gis ngeen bisimilah ni mu baaxee maa ngi lay ñaan ndimbal ci li ma tax a génn te itam wax nga ne wàkkilu naa ci yàlla wekk naa ko samay mbir yëpp wóor na ma ne kenn amul pexe wala kàttan ku dul yàlla subhanahu wa taala ah إنه إقرار لله تعالى بأنه الوكيل على كل شيء بيغا وخي توكلت على الله مي وكيلنا تي يالا بوبا نانغو nga ne yàlla rek a yor mbir yi yëpp mu ngoog allahu ala kulli shay'in wakil loolu nga nangu da ngaa nangu ne yàlla rek a yor mbir yi yëpp te mooy li mooy li am yàlla rek moom moo jar a wékk lépp ndax moom dong moo wékkoo lépp aha loolu nag gëm goo gëm ne yàlla moom ki mën a yor mbir yi yëpp te lépp ci loxoom la ne moom dong gëm goo ko moo tax nga wax tawakkaltu ala allah te mooy samay mbir yépp wékk naa ko yàlla bi nga jógee di génn say mbir yépp nga wékk ko yàlla da nga xam ne day day antu bu ci yàlla àndee ma innahu tawxidun lillahi bi annahu almutafarrid wahdahu ba noppi itam bi nga ci fajal la hawla wala quwwata illa billah teg nga ci wéetal yàlla wéetal nga yàlla ci ne pexe ci loxoom dong la ne nekkul ci beneen loxo bu dul moom kattan ak doole ci loxoom dong la ne nekkul ci beneen loxo bu dul moom ونتيجة لهذه القناعة وهذا الاعتقاد نفيت وجود أي حول ngëm goo gëm ne texe ci loxo yàlla dong nga ko am kattan tam yàlla dong nga ko am gëm goo gëm loolu moo tax nga dàq nga dàq am pexe ci keneen ku dul yàlla benn mindaafon pexe nekkul ci loxom mënu dara benn mindaafon amul dara ci kattan yorul dara pexe lépp nga ci loxol yàlla mu ngoog kattan lépp nga ci loxol yàlla nga boole ñaari yëf dàq nga pexe ak kattan ci mbindaafoon yi yëpp saxalal ko yàlla dong aha loolu nag boo ko waxee ba noppi rikk waay kay nu ànd nga seet wax jooju yan jeexit lay am ci sa xel ak ci sa xol ak ci sa dund aha waaye nag jeexit yooyu ni nga ko mën a am ci kaw nga fahmu li nga wax maanaam nga xam lu muy tekki nar ko gëm ko gëm ko xam ko gëm ko te itam nga teewlu ko jamono ji nga koy wax faaw nga teew lu ko jamono ji nga koy wax aha bu ko defee nga seet ba xam loolu ban jeexit lay am ci sa jëmm ak ci sa dund bu fekkee ni bii da ngay génn nga wax nga gëm ne mbir yëpp yàlla dong nga ko yor ba tax na say mbir yëpp wéet nga ko yàlla nga wéetal yàlla ci ne pexe ci loxoom dong la ne nekkul ci loxol beneen jaam kattan ci loxoom dong la ne nekkul ci loxol keneen ah loolu kay boo ko gëmee loolu li muy daal di def ci yow moo di ak dogu ak dogu mu ngoor da ngay gëm ne kenn mënalu la dara dara ba dara booloo jeex loolu wala fi di wax lu dul yàlla neen la mu ngoor da ngay xam ne lu dul yàlla neen la يعوذك من البركة ومن النار وخي داي اندي بركة في اللي غاي دوخ أك لا غاي دوخي أها وكم يملأ قلبك من الاعتقاد الجازم بعدم إمكانية صدور أي نفع أو ضرر فإذا بيت خلب فيس جل ci gëm goo gëm ni njëriñ mënu laa bawoo fudul ci yàlla lor mënu laa bawoo fudul ci yàlla boo gëmee loolu maanaam eh, tawakkaltu ala allah وكلنا يب وكنا كويلا لا حول ولا قوة إلا بالله ورنما نبخ كن أمكو كدل يلا ورنما ندول كن يلوكو كدل يلا بوكو وخي تجمكو مباس سبخل أكتو لمي dana bokk ci yi muy waral sa xel كن من الله جرين كن من الله لور كدل mënu آه. da nga gis ne loolu day def sa xel bu baax a baax day jëmbat ci sa xol ni lor wala njëriñ mënu laa bàyyi koo ci sëriñ wala ci tariix wala ci jabar wala ci borom doole adduna ndaxte ñooñu yoruñu pexe amuñu ci pexe dara ndax loolu mooy laa xawla wala quwata illa billah amuñu ci kattan dara loolu mooy laa quwata illa billah bu ko defee kon loolu boo ko gëmee loolu lay def sab xol da lay leer ne rek amul kenn ku la mënal dara buñ la nee dañ laa jabar te nga gëm ni ak njabar mun te jeexital mukk xanaa kay yàlla su boobaa dara la ak njabar munul ci yow naka noonu leneen ak leneen ah bu ko defee loolu li muy daal def ci yow bokk na ci sa xel day dal te da ngay nekk ci sécurité te da ngay nekk ci jàmm yàlla nu yàlla defal loolu ah te itam bu loolu bu nekkee ci yow booy wax da ngay wax ak ñeme ñeme du tee ami teggin ci li ngay wax ak ni nga koy waxe waaye da ngay wax ak ñeme gu ma sëkk doo ragal wala fii lu ñu wax nee nañu ragal yeb yàlla la nee nañu ragal yeb yàlla la luy maanaam ragal yeb yàlla la mooy maanaam yàlla dong nga yor lor ak njëriñ kon nag boo ragalee keneen ku dul yàlla da ngaa yeb yàlla ndax da ngaa fekk aw melokaan bu bokk ci ay melokaanam nga def ko askan ci keneen te kon yaa ngi koy tooñ da ngaa yeb yàlla aha te loolu day indi ci yow ak njub ndax day tax nga ragal yàlla day indi ci yow barke ci lépp looy def mbokk jullit yi tudd yàlla goo xam ne mel na nam war a mel fa jaar ko mu war a jaar yii jeexit lay waral ci dundu julit bi yàlla na ko yàlla defal ah loolu mooy misaalum koo xam ne kii day génn këram di dem di doxi soxla te defe ko ni ko yàlla bëggee ni ko sayidina muhammad jàngale sallallahu alayhi wa sallam def na ñetti yëf bu jëkk bi mooy tudd na yàlla ci ab tànkam ba mu jiite leen ndeyjoor ba ci kaw roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te itam wax na bismillah te mooy mi ngi génn ci barke ci ci ci turu yàlla boole koog di sàkku ndimbal ci yàlla mu màgg mi te itam wax na tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah kon am na ñaari zikri yooyu lan mi mu def ak benn zikri boobu ceet bu mu def loolu ki génnut ab néegam wala mu génn këram di dem te defe ko ni ko yàlla bëgge def na loolu aha wa hahuna amrun tajibu wa huwa anna baa al-isti'anati lam yadkhul am na nag ci wax ji loo xam ne mat naa seetlu bàyyi ko xel te moo di buñ ne baa gi baaw sàkku la bismillah baa gi baaw sàkku ndimbal la bismillah baa duggul ci allah dafa dugg ci ismu te kon day daal nuru ne dañuy sàkku ndimbal ci turu yàlla wi déedéet sàkkuwuñ ndimbal ci turu yàlla ci ñuy sàkku ndimbal ci moom mooy yàlla waaye nag dañuy sàkku ndimbal ci moom jaare ko ci aw turam tur wi kon waasita bu ñuy jaare ci moom ci kaw ndigalal sa borom yàlla moo ko santaane moo ko bëgge noonu wax moo wax walillahi al asmaul xusna faduuhu nuy sàkku ndimbal ci yàlla ko ci aw turam waaye bu caa jëm dañuy sàkku ndimbal ci tur wi tur wi du dimbalee yàllaay dimbalee aha تعالى يجب التزام به مع مع الاستقرار أن العون يكون من عند الله لا من sàkk gu ñuy ndimbal ci yàlla di ko jaar ci aw turam loolu yàlla moo ko tërale noonu nu war cee tënku waaye boole ko xam ne ndimbal li du joge ci tur ci yàlla lay jóge loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax. wa ahyaanan naraa ba'da al-muslimiina te yenn saa yi danañ gis yenn ti jullit mu mel ne dañuy jëfandikoo ay turi yàlla. jëfandikoo woo xam ne de dañ la tur yàlla yi mooy def xoolal yow mi am am ab téere takk ko te téere bi da ngaa gëm ne fees yaa ngi ko takk nangam du la dal ah xanaa kon téere bi moom mooy def mooy jëng téere bi du jëng xoolal koo xam ne kii dafa yaakaar ne bu defee nangam tur yàlla sàngam bu ko defee nangam tur yàlla yi da koy ubbil nangam tur yàlla du ubbi tur yàlla du ub ak téere du du jëriñ du lor ab téere mënta aar kenn ab téere kay xanaa turi yàlla ya ca nekk xanaa kay yàlla ma nga moom moom turi ya kookee mooy jëriñe mooy lore mooy aare te yal na nu aaral boppam waaye ñi nga xam ne dañuy takk ay téere te dañoo yaakaar ne téere yooyu fees ñu ko takk nangam ci ndàngam buñ ko tekkee ndangam ki ndàngam kon dañoo gëm ne téere boo téere yooyu ñoo leen di jëriñ mbaa ñoo leen di lor loolu nañu xam ne ak cànku la ci wàllu pas-pas ki jëriñ kay lore du ak téere bu ñuy takk mbaa bu ñuy tekki waaye mooy yàlla li moom tur yi aha te itam ca li am ba des di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi ci moom mu jàngal nu ko daa bokkut ak bind ay téere di takk سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كو خمول نغا خامني مست تاك تير بن يور مست بينل كن اب تير سيدنا ابو بكر مست تاك تير بن يور سيدنا عمر كن نتي صحابه يداول تاك تير اما حديث بو وخني يا يلانتي بي جيخوننا اك نيان صلى الله عليه وسلم غو خامني داي تاخ بو بوكو جانغي بو غودي دو تيت صحابة بن سموية عبد الله بن عمرو بن عاص نانا ندان كو جاني ندخ بني تيت نانا سنو قنا إلي خاني منا قنا وح ندان لين كو بندي جلين كو يتكال وايا خانا قنا قمنت وح لخانا منتا جاني نانا وايا أب صحابة بوا خانا منا وح دقنا القرآن بكو جاني نبيس كو مبين أب تير تكو كلولو مستعم لأم دق دق موجينا يونتبو لمنو جانجل صلى الله عليه وسلم mooy li ci téere bi da koy jàng ci kanamu sa borom yàlla mooy boo amee soxla ci yàlla dangay ngay jublu ci moom bu màgg bi da jublu ci yàlla sa jëmm day jublu ci yàlla sa xol jublu ci yàlla sam xel jublu ci yàlla te nga bañ faawoo kenn ku yàlla bañ a bokkaaleeg yàlla dara ku dul moom nga duy sa xol bii ba mu fees dell ak gën yàlla ak màggal ko ak wéetal ko teewlu màggam ga ak teddam ga teewlu xam goo xam ne moom rek moo yor def ak dindi boole yaakaar ko ak ñaan ko la nga bëgg lii kat moom la la yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag bay boo nga jàng saar wala nga jàng tur la ca nekk ci ay pas-pasi tawxiid mu bees ci sab xol la ca nekk ci ay musluwaay nga muslu ca mën nga am barkeb loola waaye day fekk rek sa borom yàlla ngay waxal xam nga ne moom moom moo lay jëriñ moo lay lor te itam xol bi fees na dell ku wéetal ko ak màggal ko ak sa xol fees dell ak teewlu teddam nga ak màggam nga loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal waaye jàngalu nu lii nuy def mbagg moo xam ne boo ko seetee fekk cay ndomba fekk cay téere ndigg li fees dell ak ay téere dégg naa nee ngeen nee ngeen ku naanut ku naanut sangu woo takkoo li ngeen wax ngeen ci loolu ku naanut sangu woo takkoo sayidna Muhammad daawul naan daawul sangu daawul takk sayidna Abubakar daawul naan daawul sangu daawul takk dañ dañ daan toog ci kanamu yàlla ñaan ko ñaan ko am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yaa rasulallah yow de da bari ñaan lool sa ñaan yu bari yi ngay ñaan de man mënuma koo mokkal man daal danaa bëgg nga jox ma lu gàtt mu ne ko dellu wax ده الوقت ده الوقت ده الوقت اللهم إني أسألك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم del wax يلا ما maa ngi lay ñaan wépp yiw woo xam ne sa jaam ba tey wépp fitna wala ay woo xam ne sa ba tey sab yonent muslu loon ci yow maa ngi la koy muslu kon boog toog ci kanamu yàlla woo ko ñaan ko la nga bëgg te muslu ci moom te la nga ragal loolu la nu yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni as'aluka min alxayri kulli aajilihi wa aajilihi ma alimtu minhu wa ma lam alam yow yàlla maa ngi lay ñaan mboolem xeeti yiw yi yëpp maa ngi la koy ñaan waaw ya ca teew ak ya ca jublu si yama ca xam ak yama ca xamut lépp maa ngi la koy ñaan yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp xeetu ay ak fitna ak balaa bu teew ak bu jublu si bu ma xam ak bu ma xamul ñaani yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam bari na lool am na ay téere spécial yoo xam ne ay ñaan la bokk na ci téere boo xam ne al imaamu nawawi moo ko dajale ñu tuddee ko al azkar ak al xisnul xasin ak yeneen ak yeneen kon boog rikkuwaay ku sanguwul euh, nu ngeen ko waxe ku lanul ku tëb ku tëbkul sanguwoo euh, naanoo doo fi yàgg ah xanaa xanaa kon léegi téere yi boog ak saafara yi moo fi tax a yàgg loolu bokkaale yàlla la ki fi tax a yàgg mooy yàlla

ci ñaari yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa maa ngi lay ñaan yal nag ma musal ci suuf si xam naa googu ñaan war naa baax ci ci ci ci ci yu bari yi yal maa ñaan yal nag ma musal ci ay xam ay suuf ak ay jaaxle ak njàqare te maa ngi ñaan yal nag ma musal ci lott ak tayel te maa ngi lay ñaan yal nag ma musal ci ci nañ ak ragal mu ngoog su ngeen yonent bi ni mu ay ñaan ñaan yooyu da dangay toog ak sa borom teewlu yàlla ba sa xol fees nga teewlu màggam nga wéetal ko teewlu wéetam nga ñaan ko la nga bëgg bay boo nag su boobaa nga jàng lu bokk ci alquran wala lu bokk ci ay turam julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam def ko tawassul waaye yaakaar ne téere bee lay jëriñ wala moo lay lor yooyu ay njuumte la ñes si dellu gannaaw ci tuub bàyyi bokkaale ji yal na yàlla gindi kon boog iyyaka nasta'inu mooy yow yàlla ci yow ci yow dong la ñuy wut ndimbal noo ngi koy wut ndimbal ci yow noo ngi wut ndimbal ci yow te wutunu ko ci keneen ku dul yow bismillah li nekk ci baat yi waxal naa leen ci tuuti lu ci bokk te lépp looy def danga ngaa war a wax bismillah te yenn saa yi boo koy def bismillah yi am na lu mu war a àndal leneen yenn saa yi ay jëf yenn saa yi ay wax joxe naa ci misaal ci kuy génn këram di doxi jullit yëpp des koo war a laajte te jàng ko yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla may suñu itte nu bañ koo jëmale lépp ci adduna waaye nu jëmale ko ci luy doxal suñu diggante suñu borom yàlla luy tax ba àllaaxira nu maa dem aljanna wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu